waay fii xal sa xol ah original neexal bu te pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw KPR local la ñun ñoo moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko ah ñoo ngi ñoo ak Abdou Bakhoum Abdou Bakhoum nuyu naa yaa ngi en direct Lit TV si matinal de sport. Ah, na mais matinal de sport namm nañ la de. wallaay non waaw. benn di nga fa ñëw incha allah boo gisee ñu woo uh-huh. dañaa dégg ne Franc jot na avance Albourakh production. Uh-huh. nit ñi di laam-laamee combat Ama Balde ak Franc. te yow yaay manageru Ama dama bëgg a xam ndax yéen jak jamono yii Ama Balde yéen a ngi négocier ak waa Alburax la nga ñu mën a wax si Ama fan la toll. waaw mais xam naa euh, mhm. am na loo xam ne làmb mu ngi ci ci yëpp ak ni muy demee souvent. ni muy demee du léeg du nekk benn liñ ciy dégg yëpp ak ni muy demee. waaw li ci ëpp du nekk benn. waaw waaye man moom bu loolu amee itam. Mhm. dama jaaxal parce que jàpp naa ne bu fekkee ne mbëri boppam dañoo jot avance sax. Uh-huh. man boog en personne jàpp naa ne dinaa ko yëg. man loolu laa xalaat dinaa ko yëg. Uh-huh. ndax mbër ni moom boo jox xaaj ci àdduna ci làmb. waaw bu fekkee ne kii ah incha ba ma fekkee. daceeg mm. bu ma nag wala woo ma. waaw ci loolu buñ ma ci wooyee nag it ma gàllankoor mm. dinaa dem toogal ak soxna. waaw. ndax ñooñu koy dox loolu samay xarit lañu samay doomu ndey lañu. kon kon yow woowaguñ la wax la combat Ama Balde ak Franc. non non non actuellement nii na dara jël avance wala def ah. avance wala jotul avance. ba léegi jotaguma Ama jotaguma promoteur yi waxuñu ma dara. ah waxuñu la dara. léegi man li ma bëgg a xam yéen yow waa Pikine pare ngeen pour bëreeg Franc waa wala déet. waaw mais adversaire yi du du du franc non non man dama la laaj question ma ne dama dama ne dama ne ndax yéen pare ngeen pour bëre franc waaw wala déet parce que franc xam naa ne Ama Baldé am na mille adversaires mm-hmm. mais dama laaj sama question dafa leer ma ne ndax yéen pare ngeen bëre franc waaw wala déet waaw moom bu fekkee ne yàlla dëgg dëgg yow Abdou Bakhoum doo si boole franc. man laa joon man laa joon adversaire yi mooy bëre. waaw si yoon. waaw dama lii ak lii la lii daa bëgg ak lii. waaw ci boole franc. lu tax doo si boole franc lan lan moo tax. lu tax maanaam dafa yeggagul fu mu war a bëre bëre ak Ama. dafa yeggagul fu mu war a bëre ak Ama. yeggagul foofu la. foo ko teg foo ko teg. non ci ci ci làmb rek nga. Euh, xale ne moom mën ngaa dajeeg moom ñi ngay dajeeg ñëpp ci tournoi. waaw bëri ñoom wala nga bëri ñoom ci mbappat. Mhm. daje ñoom. waaw mën nekk. mais mhm. da ngay dem ba nga say say rakk ak say mag dabante. waaw wala say mag ak rakk dabante. loolu rek la mhm. mais lu wóor mooy bu fekkee ne. Hmm. melem Bombardier rek la bëree la bëgg a yéete ci kaw gaañ yi. waaw xañ na ni ama ne ko ma joxee ci ñuy nekk di coowoonoo rek la am benn. waaw xañ na rek am na ko ko wax ne ko yow dañuy jàpp ne la. Hmm. Ah, kon am moo la war a dëkk waaye du yow yaa ne nangam leen. waaw mais moom dafa jàpp rek na am dafa jàpp ne ko bu xala la. waaw te itam gis na ne ay moromam bëriwul morom ay hmm. waaw wala sax jàpp naa ne. magante yi du demee noonu. waaw ah, ak yaakaar naa bu fekkee ne man damay laaj itam. Mhm. ak fu mu jaar ci làmb ak am fu mu jaar ci am bokkul. bokkul waaw léegi léegi Ama Baldé bu demee dem jël avance bi ne day bëre ak ki nga xam ne mooy Franc léegi yow lan mooy nekk sa taxawaay en tant que son manager. waaw mais man moom sama mbër moom bu fekkee ne moom lépp lu ma engagé woon ne bëgg naa ko. waaw jàpp naa ne am na ci xam-xam am na ci solution am na ci facilité pour mën nga def ak loola. waaw hmm. bu ko ca laajee it dinaa ko ci wax la nga xam ne moom laa xam. waaw bu fekkee ni dama dama bëgg liggéey wala nangam nangam. waaw en matière de liggéey moom. Hmm. jotewul lekk dara nag. waaw liggéey na fi hmm. waaw. waaw yow ah yow li ma li ma. te uh-huh. promoteur yi koy bëgg itam ñooñu itam buñ ma woo ci dara ma tàngam lu leen dina ci ànd ñoom. ma déggal ñoom ci ay kàddu wala ma déggal ñoom ci ay ay yow da ngaa ragal franc wala yow Abdou Bakhoum da ngaa ragal franc wala dafa am looy looy loo koy sóoraale doomu aadama amay juddoo ba léegi hmm. bawal ba jëy tutu bàyyi diggee waaw xam nga nekk ci doomu aadama uh-huh. waaw bañ naa ko man duma ànd ak mbër mu ragal sax hmm. bëgguma engagé mbër mu ragal hmm. mais kon lu tax lu tax doo yeewi tuuti nga mën a xam ci man sax dara yow ah? ma ne yow des na tuuti la nga mën a xam ci man waaw ah, waaw leer Ah. comme nga ragaloo franc lu tax doo bàyyi Ama dem bëri ak franc dem liggéey uti xaalis. waaw ah, parce que mbër yaa ngi fi di éligibilité. waaw di di di moytuwante. Uh-huh. mbëri du maam du mbër rek ama rek moytuwul kenn. waaw ay ne ñoo bokk ci daal yi. waaw dañuy dañuy dañuy daw waaw lu tax ñooñu dañu leen attaqué ñoom dañu leen war a attaqué. Uh-huh. dañoo war a nga xam ne dañu leen di aw sonné. mbër. Mm-hmm. léegi nag mbër mi nga xam ne nii moom dafa daw kenn kooku noonu dañu ko war a présider. jàppale ko kenn tooy kattan sax même bu bëggee def sax erreur. jàppale ne fii war na def erreur ndax dawul kenn ragalul kenn. waaw mootawul kenn. kon nag li wéy si wóor mooy. bu a bu engagé am na loo xam ne boo ko engagé loolu te engagement bopp la. waaye li wéy si wóor mooy dañuy jàpp ne ñaa xam yoonu làmb te war a jaar te a jaar. waaw li ñu wax ne loolu jaarul mën. yoo xam ne sax day a bu jëlul franc Ama bu jëlul franc kan la war a jël la war a ñi war a bëri bëri na. mooy kan. waaw waxal. benn. Mm-hmm. diggante ak doomi Fall Fodé ak doomi Douze Fodé doomi Fall euh, kii yaa euh, ngi tudd Double Less. waaw waa Pikine ak waa Kër Double Less la du bëreel ñi ci def yëpp lay bëreel. cest à loolu leerul de man leerul samay nopp. waaw ku dul waa Pikine. Mm-hmm. ku dul waa ñi Double ah. avance ma jël. de Guiers koy jël. dama ne déggoo li ma la wax duubalee jur ko. waaw. dama ne ñi duubalee jur laa wax. waaw. li ñu ma waxoon ñi duubalee jur. Mhm. ak pikin li ma dëkk ah, a juddoo ñoom fa dëkk ca di dëkk ba. waaw laa dul bëree ñoom laa dul bëree ñoom. du ma dox seen avance moom ñooñu du ma jox seen avance du ma ko jël waaye à part ñeneen ñi ci des ñëpp du ma jox seen avance ma jël. avance franc bu taxawoon ak avance su Lac de Guiers ban ngay jël. non bokkuñu sax Lac de Guiers day moroomam euh, bëkkile. Ah. Lac de Guiers day moroomam. Mm-hmm. Lac de Guiers rek ko gën a avancé Lac de Guiers ñu bëri yëkk ni bëri ñëpp Lac de Guiers di champion. la de. Mm. kon la joxoon avance Lac buñ la joxoon avance Lac de Guiers nga jël ko yow. bala ma cee dem de naa ci jënd ñeenti tëngi ginaar. ñeenti ginaar nga siy jënd. ñeenti tëgg ginaar yu baax dem soxna si lakkar ma ko moom woo comme ma seet na may dem. Ah. soo ma jegee soo ma jox la. ah d'accord. <laughs> Ada Fass nag bokk na sen plan Ada Fass. non daal da koy ne xam nga alors bi xam nga gis nga fi benn policier bu wax fii ne man ñu préparé ñu ne mu ne booy Pikine boobu la. Mhm. lay préparé. waaw ndax nga bëri ñoom loolu wax la slogan da lay war rek ne man. Mhm. may bopp kenn damay bëri ñëpp. dëgg loolu mooy li ma doon wax léegi rek waa fii waa kër bu ba waa Pikine damay bëri ñëw. waaw bàyyi ko kenn. Ah. waaw bàyyi ko kenn mais tey jii nii am na loo xam ne lii a nekk parce que tey jii Ada Fass boo ko joxoon tey hmm. li mu la jël avancé Pokola. waaw li mu la jël avancé Balde ko uh-huh. Balde. loolu loolu la lay wax rek noonu la ñuy noonu la gën a. Hmm, d'accord ah ndax ndax làmb nag. Hmm. moom su ma nekk nii Mm-hmm. mais gars yi dañ koy dañ koy médiacité ba nga xam ne mm-hmm. bu yóbbu ko foo xam ne di siiw mais yow bi xam làmb sa xam ne yow baat yi boo ko déggee da nga war a tab nee rek xam ne loolu wax la rek ñu waaye di luy gën nekk waaw yow tey boo doon laaj diggante Ama Baldé ak Franc boo doon laaj kase ñaata ngay laaj tey pour war mun a bëre ak Franc xanaa ay milliards ngay laaj wala maanaam loolu day fekk mbër mi dem ne damaa bëgg bëri moom teer par force damaa bëgg bëri moom damay bëri moom waaw laajal nangam nangam dama la ma ko laaj danaa ko ne yow mu bëgg Eh, yow li nga bëgg ñaata ngay bëree. waaw ba mu ne ma nangam laay bëree. ma laaj la nangam laay bëree. waaw. pour muy leer. pour muy leer. ah mais am yow am yow ah, ah, actuellement am. Mhm. ma ne. Uh-huh. actuellement est-ce que am na ay promoteurs yu lay woo di la wax combat Ama Baldé yow. non du jeex. du jeex waaye am na ci yoo xam ne ñu mhm. daw. du ay waxi français dañu ko nga xam ne loolu jaaduwul sax. ah jaaduwul. ah dégg yow daal yow daal àndoo Ama Balde ak Franc yow bu mu la déggee àndoo Ama Balde ak Franc yow Abdou Bakhoum. déet man moom bu nekkee nee naa doon laaj ay adversaire ñu du ma ci boole Franc. ah leer na. Mm-hmm. leer na. jërëjëf Abdou Bakhoum si leeral yi. kontaan naa Iba. jërëjëf jërëjëf merci. merci beaucoup merci nañ ko dégg incha allah. ah Badou Mbaye. Mm-hmm. Euh, yow yaa fekkee yaa dégg. ban jàngat nga def si Abdou Bakhoum lu mu wax.